yes e enen nenen ene e enen nenen jara enen nenen jara e ko honɗum ni noon e enen nenen jara onon hay football on waawali menen men lappi onon onon he on sikkuno menen men wawata dara menen gambi menen men waawi min pullo am ɓen aray kadi hannde mhm. e wayyone enen jaara enen e wayyone jaara enen wayyone enen jaara enen on yimene min lappi onon o football hande yahe jooɗon joni min faala lappude sénégal min lappay nigeria min lappay fow be yimɓe ɓen fow menen gambi ñinan kawmo ñinan kawmo disiya menen inchallah min jettay coupe koppon min jettata noon this 2020 koppo on inchallah minen min jettay onon fof on yahay on jooɗa minen acce minen min mhm, waɗay ligge o sénégal danañ leen gañe ren gi inchallah mhm, nigeria danañ leen gañe ren gi ngeen def seen bopp nit mhm, ngeen a fuuy ta sibbutu yéen sénégal ak nigeria ak yeneen dëkk yépp tout fuuta sibbutu ren ngeen di toog nag mhm. benn sëriñ du leen mën a dimbale wanaa dara nothing ñun ñoo leen di gañe incha allah ren gile mhm. Mhm. sëriñ yi duy dox ci football ni konoon tubaab yi yéen leen di gañe ren gii ñun ñoo leen di gañe yéen Sénégal ak Nigeria ak yéen ñëpp tout gune góor bi tudd baro nii fo xuuteeg toomaxam Adama Baro mu yambar mule Adama Baro ma ne Gàmbi di yëppas si ni Ami Jóob muñ jaale kii fo xuuteeg moom mhm. kii Baro mi Baro mu storonga storonga storong la incha dana leen gañe mhm. ñun ren fañ leen di gañe suma reer bi day tax sama bëñ yi léegi laa doon lekk come ak jaal bi yee incha xam naa ko incha la kenn ragalut bu leen ragal bu leen tiit tukk na ñépp tukku Sénégal ci boppam <laughs> Sénégal bu leen Gàmbi gañee du ngeen a fuuy te sibbutu te foog ne yéen man àddina si tur ki jam taxaw leen gi ngeen Gàmbi fa tuuti waaye kaane la xamu leen lool ebe yi la ak kaane gi bu leen Gambie jàppee ren barki salaatu faatiha Sénégal ebe yee kaane gi la ak basaab bi bu leen Gambie jàppee rànq yi te rekk ngeen di dee acca konkande na leen dimbale du yéen a nga am ay konkande indi ay ninki nanka di di di ko sëpp ca télé ya di di mel ni ko njaale na leen yooyee dimbale <laughs> ninki nanka yi bu leen ko ragal yéen gune góor yi mm-hmm. ninki nanka yi bu doon dox tubaab yi ñu konoon kenn ñoom ñun nit ku ñuul ñu konoon ñooy xame champion yi football tubaab yi toog ñun nit ñuul su doon ninki nanka yii fa ñuy dox ci football bi léegi ak yooyu ñu konoon ñun ñooy xamee football ci àddina si nii tubaab yi bokk waaw te tubaab yi nga xëy du ñu def ninki nanka fa ñuy tireen rek lu tax ñu gën ñoo mën a tireen football kon football duut mbiri lifin ninki nanka bu leen ci tiit ninki nanka bu leen ko tiit du leen jàpp konkande ninki nanka ku Sénégal bu ko usé ak Nigeria yi du leen mënal dara gëm leen seen bopp te xam confident te relax su ngeen nee si game bi ngeen ngeen ne yeemaan booy booy teen ñu ne ñu win ñii booy no problème incha allah booy ñun ñooy win ñii booy nañ relax rek booy téye ko foofu noonu rek relax ngeen wax loolu ngeen téye ko foofu bu leen xeex bu leen defante suñ leen nexee di bi ma xaka di defanteeg bu leen nangu xam leen fu ngeen di xem su ngeen leen nexee di bi ma xaka defante fañ leen di jox karta yu xonq yooyu karta yu xonq yooyu buñ leen ko joxee ngeen yàqule toog moom la ñuy bugg moo tax ñu di leen wut seen seytaane yéen kaam leen rek bu leen def jikkoy gàmbi yéen jooj ah di xeex non te kaam leen mel ni ko dof rek di leen seetaan ne leen ah this is what you're gonna do ñu ne la waa nga ne leen waa ok ne pat rek focus di xoolante di piituxante di wëlis booy booy aca mane ne booy xoolal lii booy booy yow boo doy looy booy booy ma ne def leen noonu rek te def li ngeen di den ne pat <laughs> waroon naa faane konoon ma gañeel leen <laughs> gi nga Sénégal bu ñëwee ak Nigeria nag ñëpp di leen jéem a xeex ak defante di mer seetaan leen leen ne teg calm down am confident xam ne ñun suñu réew mi tuuti na waaye ñooy gagné incha allah ñooy gagné gëm leen ko rek hundred percent mel ni gagné ngeen gëm ko. Mhm. ba pare nag ngeen focus di xool nu ngeen di def ba gagné rek focus saawu game ñëwee rek na ngeen focus su may jëm a digal aadi ci football fay reeba xaw ma ci football dara te may digal aadi buy football di naan ko aadi defal nii defal naa mu naan ma yaa yow you don't even know what you're talking about <laughs> ma naan ko aadi xam naa ko waaye déglu rek li ma lay wax <laughs> aadi mu ngi kontaan ba. Mm-hmm. ñëpp ngi kontaan. Mm-hmm. footbal leen Gambie ñaanal naa leen da ngeen gañe mm-hmm. baro mi baro mi xuuteeg toomaa xam jërëjëf yow ak ñeneen ñi yéen ñëpp bokk ci tiim yi moom kenn baro rek man tax ñu gañe yéen ñëpp ay pilee waaw njëkk a fecc taxutam moom moom géew de yéen sax da ngeen dugal du baro rek kay dugal yéen it dangeen dugal gaaw leen dugal màcc màcc bi ñëw Sénégal na ngeen leen dugalal fukk ci benn Sénégal moom buñ gañee Gambie danaa xuti biri xaru ji bu Sénégal gañee Gambie de gañe leen Sénégal fañ fuuyta sibbutu gañe leen Nigeria fañ fuuyta sibbutu ñëpp rek gañe leen leen ñoom ñëpp fuuyta sibbutu foog ne ñooñu gën ndax liñ tuutee tax ñu yab ñu defuñu ñuy nit woon leen leen nag ne leen tuuti taxut a nekk terewuta doo melentaan wala jiit gisoo melentaan ni mu tuutee te bu la màttee nga tëb loo réeree nga tëb fa xasu gaddi gisoo jiit jiit fa tuuti waaye boo ko dëggee ba fett la àddina noonu la fa ñu tuuti te safkaane bu leen nangu nit ñi tuut xeeb leen tax ngeen xeeb seen bopp non moom laa bëgg a wax nii pour encourage leen mhm. incha allah jërë ngeen kontaan naa trop wax naa aadi ko su ngeen wiinee Gambie eh, Nigeria danaa ko jox five pound moo faatu ku ne five pound su ngeen wiinee Sénégal yi di seem ngi kontaan ba gaaw leen wiin leen incha allah da ngeen leen wiin bu leen tiit bu leen ragal ku hut sëriñ hut ninki nanka bu leen ko ragal sëriñ yeeg ninki nanka yi bu doon dox nu ko noon tubaab yi ñun ñoo leen di gañe ci football bi football bi xat bu ne fa ñuy ñëw taxaw ne ya sax duñ mën a pilee di nelaw ngeen gañe leen Afrique gañe leen ak dëkk yi sëriñtu yëpp mhm. waaye gisoo ko duy dox te tubaab yi du ñuy sëriñtu fa ñuy football rek tireen kon yéen bu leen ragal sëriñ mi sëriñ mi yéen a koy ragal rek ba kon fi dof ñu nit ku gisoo man ni ma ko faale wutee te wàññiwut ma dara bu ko faale du la wàññi dara lu dul yàlla neen naa e ganaari kenn du ma dinañ daga daga daga lay lay la laa gañe leen àddina si yépp Gàmbi mm-hmm. Gàmbi kay ca woor ko ba la jëm ca kaw rek gañe leen àddina si yépp fi ne mm-hmm. góori gambien yéen nit ñi fañ leen xeeb ndig li ngeen xeggut fenn ci football waaye fi ne woon leen àddina si yéenay kan ngeen a njool te rafet te xam doole yéen ñu ci bëri ku ci gàttit fay xam doole te te xam fayda won leen ko àddina si bii mooy seen time ngeen won ko àddina si waaw straight confident rek confident bul tiit si mbiri sëriñ ak tiit si mbiri nangam bul def naqadi deret bul def doole football moom confident ak ñàkk a naqadi deret rek la man xam naa ko football confident ak ñàkk naqadi deret mooy tax nga gañe ko xam naa football aadi fay football football confident ak ñàkk a naqadi deret su nit ñi jaay naqadi deret nga kaam parce que soo leen toppee si naqadi deret gi fañ lay jox red kaata ak yellow card nangam ak ki nangam sa player yu baax yëpp dem toog ñoom seen player yi daal di la gañe mooy problème bi bu ko nangu hello jërëjëf love you guys too loolu la maa ñëw wax leen loolu ma ma ci kontaan ba bugga ñëw encourage leen waaye maa ngi ñëw dem jàpp leen si foofu da ngeen gañe Sénégal gañe Nigeria ah dégg ma ko doon wax xaw ma ban dëkk Tunisie xaw ma waaw mu ne Tunisie ñoo gañe Nigeria te tey yéen yéen a gañee ñooña there you go ña gañe Nigeria gañe ngeen yéen ngeen ngeen gañe ñooñu Nigeria taxul leen ñu Nigeria fañ dangaam rek mënuñ leen ñoom ñëpp xem fañ dangaam rek mënuñ leen def leen li ngeen di def te jàpp seen bopp te gëm seen bopp incha allah da ngeen ngëb kob bi la yëkkati ko ba ca kaw ngeen ngëb ko nataalook moom nit ñi koy yëkkati gënuñ leen gëm leen seen bopp rek te naan seen fonde balaa ngeen a dem lekk laax lekk cere lekk cere mbuum dem football yi te calm down bu leen naqadi deret bu leen puus nit ñi su leen nit ñi di puus di leen gaañ ak jaay naqadi deret ngeen calm down xam leen fu ngeen di xem ak nit ñi daal like loolu rek laa leen di advice parce que Gambie yéen dañ xam naqadi deret waaye naqadi deret bi da ngay xam foo koy yóbbu bu ko yóbbu si maaj bi but so far yéen a ngi def good aadi mu ngi seet li ngeen di def aadi xam na ko Nigeria what what did Nigeria do now Gambia is gonna win Nigeria the other country that win Nigeria, we win that country. Tunisia or something. This Tunisia country, we win it and they win you. We are going to win Senegal. No. Gambia is going to win Senegal. Gambia, Senegal, three final. Yes. I don't know what you mean by that, but Gambia is winning. I cannot wait for Gambia to win Senegal, by the way. Hey, I will be... if Gambia win Senegal I'm going to fast for three days no food I'll eat in the evening like seven o'clock but I'll fast like Ramadan fast I swear to Allah I swear I, cannot be lying about that if Gambia win Senegal I'll do three days fast I'll wake up in the morning I will not eat or drink water nothing you know I love water I will not drink nothing until seven in the evening for three days. And if Gambia win Nigeria, I fast five days. guys, look at me. And I go running. If Gambia win Nigeria, I'm going to film myself and run for 20 minutes running non-stop. And I cannot run for one minute even. If Gambia win Senegal, I film myself running for 10 minutes running non-stop. And I cannot even run for one minute. i I'll film it. challenge I made for myself. I will fast and I will run. And I promised my children that if Gambia win Senegal, I will give them five pound each. If Gambia win Nigeria, I give them five, five pound each. And Adi was like, no, I want 10 pound for Nigeria. I was like, no. I'm into this football now, guys, like no man business. <laughs> the children, they're laughing at me. Inshallah, Gambia. Salute. Keep going. Danañ win ñii jël falaaj bi xenu ko kob bi seen xol bi bu teeku fa ñu xeeb waaye tey rek lañ leen di yar acca leen bye guys xam leen good evening acca salut wax leen boys si suma message bi ma leen wax nii danaa post vidéo ba youtube wax leen boys yi ñu seetaan ko danaa ko post youtube su ma paree wax wax leen boys yi seetaan ko ne leen man ma ne buñ ragal dara te fuñ toll rek nañ nekk di wax salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad buñ ragal dara nañ xam confident te calm down buñ ne di use anger ak temper ak aggressive you know ah si maaj bi no te nekk di xool lekk-lekk yu baax xam nañ li ñuy lekk sa dofuñ man daal maa ngi pari si game bi ne rek maa ngi ci digg game bi fi mu ne ne rat Says no way Gambia will beat Nigeria. Gambia will beat Nigeria. Never ever it won't happen. What? I beg. What the hell? Are you Nigerian or what? Why? Why it's not gonna happen? Tell me why. Gambia beat the country that beat Nigeria. Tunisia beat Nigeria and Gambia beat Tunisia. So Gambia already beat Nigeria. Tunisia, your boss who beat you, we beat them. gis nga ko façon yii ñoo ñuy jël suñ confident bi they trying to trick us guys to make us feel like we cannot do it they trying to scare us never ever again it's all lie who the hell are they that we cannot win them they God let them sue we're gonna sue them pepe who the hell are you telling us that we cannot win you you God you have three eyes you don't have mouth you don't have nose who are you you some alien We win. We're going to win you. Doesn't matter if you are Chinese or Indian or whoever the hell you are. We're going win everybody. No one cares. We're going win everybody. Doesn't matter if you're coming from the sky. We're going win everybody. We have to have confidence. su ngeen demee di play def leen confident ku ñëw naan leen kii du ñu win ne ba ngee just demal ak confident rek good luck guys salute well done keep practicing dee leen train dee leen lekk healthy dee leen stay positive ngeen di julli di ñaan di tudd yàlla bu leen nekk di njaaloo di tilim déedéet di leen sangu janaaba di clean di stay clean di tudd yàlla di wax salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad di wax laa ilaha illallah di wax astaghfirullah di tudd yàlla daal di nekk clean di focus te seetaan leen su ngeen paree rek da ngeen leen gagné incha waaw acca good night jërë ngeen jëf and yeah good luck guys ba si kanam incha allah bye <laughs>